waaye tamit Petit loo doomu Modou Lo roi des arènes hmm? Petit ngi nii taxaw Petit ci loolu rek jotuma la maa ngi nii am nga jaam ah, waaw baax yaa ngi reetaan rek de yaa ngi dégg jàmm de waaw ngi dégg thank you kay maa ngi am sama thank you de waaw yaa ngi dégg jàmm maa baax kay maa ngi fine kay dëkk bi ah, naa si ko alhamdulilah muy dox waaw muy dox bu yem rek ah def naa depuis nga jógee sa combat ba te dañuy rombante souvent daje nii rek waaye bilaay bilaay gis nga mooy loolu su combat boobu yoon na de neexoon na de. waaw ah, neexoon na macha allah kay mooy loolu mais jàll na <laughs> maa ngi ci leneen. bilaay mais combat man mënu jàll na mais il faut que mu diggaat parce que bëree ba nga bëree keroog ma wax ci plateau bi ma ne si bëri màgg si entraînement màgg si xeex moo def lan moo la defar ci diggante bi. ci lépp lu ñuy gën a dem mooy gën màgg di dem damay màgg di dem rek incha allah ba keroog mooy yegg fi ma jëm hmm. waaw. parce que dama gis ne bëri bi da ko teg ci yoon xeex bi noonu même ba bi ngay daan sa adversaire amee ah, loolu moom war man su ma ko xaw a kaw loolu moom war su ma amee combat gars yi dañuy def si man lu nekk eh, damay def box bi war dama koy def entraînement bi war contact bi war gars yi def si man lu bari xam nga moo su ma duggee damaa war a def lu leer waxoon naa ne ko avant ay ñëw ci làmb ni daan sa bopp yooyu jeex na yooyu amatul saa waay non léegi koy teg ci yoon est-ce que mën que le rek léegi rey ki ci des quoi waaw que le meilleur rek gañ que le rek ki des est-ce que Modou Lo bi nekk sa côté du sa atu euh, en tant que sa papa est-ce que nekkul sa atu tamit parce que gis naa fan yi ni mu lay jàpp ni mu la jàppee quoi ma gis ne fu muy dem yaa ngi ngi ànd ak moom est-ce que du bi muy liggéey wala façon bi muy liggéeyee ci boobu la la teg ba tax amélioration bu baax a baax. ah yàgg na ma yàgg na ma jàpp yàgg yooyu yàgg na am quoi amaana darul woon feeñ rek moom xam nga moom génnam bariwul moo tax waa ñu bari daanuñ ko gis quoi mais mi mooy teg ci code mi mooy teg ci yoon xam di ko ñaanal bu baax yàlla defal ko jàmm nga daan adversaire bi nag après coow li bëri sa combat ak diw sa combat diw ku ne coow nañ fi yàgg moom bi ci mujj bi ci mujj yaakaar naa yàgg Pokola Balde la après loolu fan la mujjee ba tey amoo adversaire wala Pokola dafa a bëri yow wala dafa la dépassé wala quest la rek fii moom ñun ñëpp ñu ngi ci làmb ji bu ñu bëriwul léegi tamit ñu gën a dem lu ñuy gën a a métti si ñoom hmm. maanaam bu làmb doxoon seen diggante ci jamono ji nekk nii am nga lu bëri loo mën ci moom parce que nekk na xale boo xam ne bëri na sañ-sañ ñeme na te it nag du deltu ginnaaw te am na lu mu def biir parcelle. moo xam naa aw ma cinq cinq te ragal laa man. waxuma la loolu de moom laa wax. <laughs> ñëwaguma ci am na loo man ah bu ñu daje woon day neex rek ñaari xale kay bu ñu dajee ñoom ñaari ñaari attaquant kay. te man sama combat bi amul benn bu ci mat une minute trente secondes. waaw vite fait la kay. dafa ragalul dara de. ah man dem ragaluma dara day neex rek. Hmm. na arbitre dinaan prix affaire yi tax. seen combat la moo tax taxawul. xam ko ma adversaire moo tax taxawul adversaire bu ñu wax ngay naq naqal gaan ay une semaine deux semaines nga ne sama grand yi nii. booy la wax booy nañ jël avance. non moom nee na mu liggéeyaat ba si kanam ah maa ngi liggéey dégg naa ko nee na mu ba si kanam maa ngi liggéey. boo xam jooju noo ko jàppee la wala dafa jàpp daf la dépassé wala. dara xam na ay grand combat man bëreeguma grand combat amaana yooyu yëpp da ciy joué quoi comprendre nga. yooyu yëpp da ciy joué moo tax li mu wax nangul naa ko maa ngi liggéey bu baax. kon na nga jàpp ne li mu wax dëgg la dëgg la daal jaarul xam nga lamb coow mooy boole lamb te bu dee coow rek sa waay ñun ñun ñëpp sama génération amul kenn ku ma si ëpp coow lamb comprendre nga coow mooy boole waaw. Baye Mandiaye tamit dañ doon dox seen combat moom sa am na am na combat yaakaar naa il paraît que moo ah, ñoo ñëpp dañuy wiir mais mooy loolu. say adversaire lañ. ah samay adversaire lañ kay dañuy <laughs> hmm. mais wiir wiir jaar ndaar ñoom ñëpp dinañ daje incha allah. da nga bëgg tëj. Ah, bien sûr pourquoi pas. deux combats laa bëreegun kay te saison bi tëjagul war naa mën a bëreewaat. deux combats deux victoires. Hmm. Mm-hmm. bëgg a amaat troisième waaw tëjee ko saison bi kay après mu tijjiwaat ko. nga allah kon daal Petit dafa bëgg daal saison bi ren mu def trois combats trois victoires bëgg a subiwaat saison. waaw nga teg ay pas yu bari yéeg ci kaw. mën a gën a avancer quoi. waaw boobu <laughs> yéeg ci kaw. kër wax naa ko parcelle macha allah actuellement dafa bëri espoir mais espoir yi nag dafa am ay niveau parce que boo xoolee tey yow li ñëw ci yow ak ña ñi la xaw a jiitu parce que yàgg Talfa mën na yéen ay ay kii ngeen mais am na ñoo xam ne ñu ngi leen ngi leen jiitu tuuti mais dafa mel ni dàqee la fi mu nekk ni biir parcelle Talfa Otilo Mbacke Faye xam nga ay jëm ci kaw ba dem ba ci ñoom franc ba ci Modou Lo sa papa dàqe bi foofu metti na de. ñun ñëpp ay doom parcelle lañ ku ci génn drapeau parcelle ngay te làmb mu ngi parcelle ndax ku ci nekk sa génération kenn mënu la ci kenn raw la ci mhm. waaw mooy loolu. Cheikh. Cheikh Tidiane Niass waaye. waaw. <laughs> moo tax nga ñëw fii mu ñëw fi mhm. waaw. Ah, jar ko ah, jar na ko moom sama waay la. mais fan yii. Euh, defal ko ndam incha allah ci ni kii la andi woon si làmb mooy ànd ak. kii mooy faya. <laughs> kii mooy faya. ninki nanka kon daal faye ñi mooy ay mbërëm Cheikh Cheikh ci loo ne yaa ngi am jaam maa am jaam baax baax mais da ñaq nii ba tooy de te dara xewagul waaw mbes bee laaj rek waaw jotagul sax Cheikh ah lamb ji seegul de dimanche la de lamb si kam si biir semaine bi la nekk ñu ngi si lamb ji bu baax baax yaa bu baax say combat arène day yomb bii maanaam mën nañoo xaar mu gaaw incha allahu rabi day gën a gaaw am naa si yaakaar bu baax bien fait ndox ñii dañ maa sas booy koo ñi dañ maa sas. bi tamit ni ñu lay toppee nii koñ bi fii daa mel ni sopp nañ la. masul am dañ maa sas lépp lu ma war a def rek ñoom la. billaay walaay talaay aw ma seen fay maa leen di gërëm bu baax a baax di leen sant booy sama kooñi maa leen di gërëm bu baax a baax a baax su ma limee nag damay juum te bëgguma lim kii bàyyi kee ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn seydi naa Mouhamed maa ngi leen di gërëm bu baax di leen di sant bu baax a baax a baax waa sama kooñ ñoom rek laa am te ñoom rek laay topp te ñoom rek laay mos a topp tamit incha allah. kon daal maanaam dañuy kontaan ñoom. non ñoom boo leen laajee ñoom luñ bëgg moom loolu laay def luñ bëggul man du ma ko def bu dee ñoom dañoo bëgg man ma daan incha allahu rabi man dinaa daan am naa si yaakaar bu baax a baax. leen ndànk mu ngay saraxe ayo booy yi bëgg nañ mburu de booy bëgg ngeen mburu de ah ayo booy bëgg nañ mburu daa ngi koy defar jërëjëf mburu ma jeex na booy mburu ma jeex na amet booy defal nii dégguma nga ne ma ne Alboury bu ñu ko jàppee mu xam ne yaasa bi du ci soble du ci dara du fata waaw dof leer na seex ngi noonu dox ndànk jëm ci open press ba